Bienvenue sur Salam Vision. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokk yi Salam Vision man Serigne Cheikh Samb xarnu bi maa leen di annoncé benn émission bu ñuy war a def dimanche bu jot muy xam sa démb émission la boo xam ne nag dañ ciy waxtaanee cosaan ak aada ak lenn ci dundu mag ñu njëkk ña pour gone tey yi a xam li xewoon démb cosaani démb yi. ak li ñu rëcc ci suñu aada ak suñuy cosaan loolu lañ bëgg a dellu soit ci seen xel ba mu ba mu ba mu ba mu dellu soit gone yi mën koo jàng mën cee jàngat ci ngor ci jom ak ci fulla ji mag ñu njëkk ña daan dundee loolu moo émission bi jóg moom lañ leen bëgg xamal fii ci Salam Vision dimanche bu jot ngeen bàyyi ci xel dimanche danañ leen indil thème dimanche bu jot daañu leen indil thème bees boo xam ne nii ñun ñëpp danañ ci mën a ànd jariñu ci te xam ne nit mënta dund te bàyyi cosaanam kenn du bàyyi sa cosaan boo fàttee sa cosaan rek fàtte nga sa bopp te nit du fàtte cosaanam te ñun amuñu dara lu dul suñu cosaan ak li ñu fa mag ñi bàyyiloon ñu bokkoo bàyyi ngir topp tubaab yi topp seen culture yi topp téléphone yi danañ dem ba réer dootuñu xamante fu ñuy taxaw ndax boo ko xoolee jamono bii ñu toll nii gone yi kenn jàngalatu leen dara ñëpp tonton lañ leen wax bàyyi amatul bàjjan amatul maam amatul ñépp tontoo la ñuy wax sa bàyyi sa pile jur boo defoon ndànk tontoo lañ koy te kenn xamul lu leen ko jàngal te lépp réere suñu cosaan dong moo ko waral kon nag niñ leen fexe ba si siwaat gone yi ñu dellu siwaat ci yaru mag ñu njëkk ña ba mën a xam fi ñuy taxaw ba suñu àddina mën a jaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Bienvenue sur Salam Vision.